jërë ngeen jëf mbokki internet tim topp ka 221 ginnaaw ba ñu leen nuyoo di am mbégte ak contentement ci ànd bu rafet bi nga xam ni yéen a koy ànd ak ñun saay su nekk bës bu nekk li gën fa si yéenekaay yile di euh, nomination bi nga xamante ne daal di nañ koy nominer kii di euh, Pape Alé Niang bu daal di nekk directeur général foofee ci rajo télévision Sénégal mu di RTS ginnaaw ba ko population bu Sénégal Sénégal daal di koy sàkk woon laata sax élection yu bëri waxoon nañu ne incha allah bu ñu gañee li nga xamante ne moo di élection yi nañu jox kii di Pape Alé Niang mu nekk directeur bu RTS loolee nag kii di Bassirou Diomaye fay daal dina koy amal jël li nga xamante ne moo di poste boobee daal di koy jox kii di Pape Alé Niang boobaak léegi nag ñu bëri ñu ngi àddu naan kii nga xamante ni moom moo di Moustapha Diop moom it daal di nekkoon na ko mérito waaye dañ xam ni que lépp loo xamante ne nomination la dañuy di xool ki nga xamante ne moom la ci euh, sansam nekk ak ki nga xamante moom moo daal di méngoo ak boobu parce que ñu jox ko te kii di Moustapha Diop sax musta euh, sàkku ngir doon li nga xamante ni moom moo di directeur bu RT est xanaa dafa daal di félicité ak ñaanal ki nga xamante ne moom moo di Pape Alé ci poste bi ñu ko jox mu daal di koy téye nekk askanu Sénégal bëggee di ko ñaanal li ñu ko yan yàlla na woyof lool ci kawam mooy leen di abonné ak partage suñu ay video saay su nekk bés bu nekk nii lay demee fii ci Tim Top Cas 221